Mollah beneen ah, ah, ah, point d'accord d'accord d'accord mais euh, audio bi nga xamante ni également yaa ngi ci réagir gis naa ni am nga également diggante bu bu bu rattax ak ki nga xamante ni moom mooy MC Niass déjà bi nga xamante ni moom sëriñu Adji Sarr la moom mi def ay révélation ci bi def dossier ni Adji Sarr ci boppam ko confié que ni li muy wax yëpp tegu ko fenn et que dara amu ci waaw kuy di MC Niass en juillet déglu moom mi ngi déglu de te waxuma ak moom noonu de MC ñoo bokk Kaolack ñoo màggandoo mu nekk ci hip hop bi ma nekk ci hip hop bi alliance ñuy daje yor micro yi comme ay jeunes di rap muy freestyle mu ñuy comme jeune rek un simple jeune un jeune sénégalais. dund saayir ñuy dund saayir di dund baatin MC Niass mooy ma nag nga xamante ma numéro téléphone du ñu woowante yàlla day def nag dañuy daje bu ma nekkee Dakar lu bëri dañuy daje ci saayir yoo xam ni vraiment c'est pas programmé daje naa moom kër Moussa toog waxtaan fàttaliku jëpp jamonoy underground moom tamit mu ne sama kër nekk ci oto. carré freiné ñu taxaw waxtaan donc mën MC musuñu waxtaan sax lu mat une heure de temps ci noonu la ñuy dajee occasionnellement accidentellement la ñuy dajee mais dama lay expliquer benn affaire dama ne aji Sarr MC Niass woo na ko en juillet MC mi ngi may déglu te waxuma ko ah maa yore rapport bi bu mu ko woowee en juillet aji Sarr jël ko Adji Sarr bés enregistrement MC Niass bés enregistrement te kenn ci ñoom waxul sa morom mu ngi enregistré sa morom yaa ma dégg mm-hmm. ñooy enregistré ko audio ya na mu demee ci m dem ci Adji Sarr noonu la demee ci ñeneen moo tax bu ñu laajee m signes ko est que yow rek yaa mën a man kese parce que ay moom xamul ni Adji Sarr tey laa koy xamal ne Adji Sarr enregistré na ko waaye état bi it jël nañ audio ya yaa may dégg waaw état na ko tamit hmm. léegi nag loolu man yaruma bu aji saar ndax aji saar basam ba mu ko jëlee ma ko yónnee maam maam seen la ko yónnee mu dem ci maam seen mu ne ko dencal ma ngir ëllëg MC Niass jël denc ci portable am gouvernement ba jël dajale ñoom xam nañ lépp Macky Sall c'est le responsable moral na bu nangu woon bu bëggoon li arrêté mu arrêté moom mooy jeu film boobu noonu lépp moom la mais dafa am à des fins politiques mais maintenant dañuy continuer ci loolu léegi moom la gouvernement bi tamit amee ke ca ña may jox moom it mën la ci kaw nag au sommet de l' état yanul audio yooyu dóor ma ko muy sept audio ma ne premier audio bi onze minutes la deuxième audio dix sept minutes la non deuxième ojo nekk quatre minutes troisième ojo nekk dix euh, sept minutes noonu laa ko waxee donc audio yooyu noonu laa ko amee te ma jël MC Niass moo jëlee MC Niass waxtaan bu gaaw ba ma waxee moom ci dafa nangu ni vrai yow yor nga audio yi ndax man dama continue audio yi sax laa ko commencé woon di raconté naan ko aji saar naan la jël si ma ba nga naan ko ah ci yow la des mun naa la jël indi la mbir na bàyyi fu ma la mun a laax kenn du la mais noo ko xamee te waxuma MC hmm. parce que audio laa yor d'accord naa par sa appréciation par rapport ak audio yooyu est-ce que tey jii jàpp nga ni euh, taalibe buy waxtaan ak sëriñam en toute confiance ku nekk di enregistrement war na fa am yoon <laughs> lool loolu laaj ko MC moom kilifa la mun na la caa tontu après nga dem laaj ko aji saar tamit lu tax mu enregistré sëriñam di ko di ko ba yónnee ko man man loolu moom ñoom mais mais mais ginnaaw ba audio yooyu jamono jile parce que yow dañ lay laaj MBC yow yow kii moo laa ginnaaw ba yow fu ne nii apparemment dossier bi moom yaa ngi au cœur da nga ko maîtriser nii poñe ko. est-ce que da ko lan. sama loxo. waaw ah, d'accord da nga ko nee ngeen euh, kon je pense que ni kon tey jii pare nga pour bu la yoon soxlaa. ngir nga mën a indi li nga xam en tant que témoin ci bile mbir euh, di nga jógee Canada bi nga nekk ñëw Sénégal wuy si. kon kon kon kon yoon am xéwal de kon yoon am ma def mais mais da ngaa jib donc loolu dina la ko dama ne yoon moo yor audio yooyu yoon moo jox audio ci yoon ci yoon la jógee ci ñoom la jógee ñoom ñoo ma ko jox. ñoom ñooy la gën a yor audio yi ma boo xam ni insignes yor na ko Baye Mbaye yor na ko Adji Sarr yor na ko Buur yor na ko nga ne ma bu la yoon soxlaa nga ko yoon dem ci bu ko jële dama na yow mii moo laa ginnaaw ba yow apparemment xam nga mbir mi yëpp nu mu demee ginnaaw ba yow juge nga ne lii ab ab complot la ndax ji noppi nga bu yoon demoon ba soxla ay témoin ci bilib bi ni nga xam am nañ ci xam-xam ñu woo ci di nga si ñëw pour témoigner soxlawu ma ko dama koy jox ñam war a woo pour ñu témoigner ña bokkoon ci crime ba te woowu guloon ba léegi demal nga indi Sidi Mouhamed Mbaye dama la koy jox ay tur yu mu dem yu mu war a woo ji ñooñu ñooñu vrai témoin ñooñu ñooñu ñoo koy témoin ñoom li ñu ci waxtu li ñu cëraloon ci waxtu bëreetul noonu mais tamit euh, moo laa duñ la recevoir ba fii ngay artiste te tamit duñu ñëw ci sa carrière artistique mais laataa ngi ñëw ci sa carrière artistique dama bëgg nga ñëw ak man ci benn point muy parrainage bi ak élection législative yi nga xam dëgmal nañ ko ñu gis ni def ko ci également apply nga xam ne ni euh, groupe Sénégal ñoom xam nañ ni déjà ni ñoom ñooy rawee opposition bi dix huit pour cent contre douze pour cent xamatu moon noo ko euh, noo ko véhiculé noonu ci côté chiffre yi tey ji euh, sur quoi tu te vraiment pour mun a xam yow mi sa bopp lan mooy chiffre yi war a ci élection législative te te te waaw mais man damaa wax ay affaire yoo xam te yàggu guñ te mu am gaa yëpp dañoo génne Ousmane Sonko dinañ ko jàpp Ousmane Sonko moytu leen daw leen daw leen comme foofu noonu nga ko ma génn leen kenn du ko jàpp kenn du ko jàpp kenn du ko jàpp dem leen tëri gaa yëpp dem tëri est-ce que jàpp nañ ko mu ñëwaat ñu ne ma Ousmane Sonko buy jaay Ousmane Sonko dinañ ko enquête Ousmane Sonko dinañ yóbbu Ousmane Sonko gis bi dina ko woo dina man leen kenn du ko woo après lu dul après 4 avril du dëgg non nel dëgg bu dee dëgg loo dëgg nel du dëgg wala dëgg la rek ñu. man de moo laa wax su ma war a wax dëgg ak déet yow waxal sa wax rek te génne ma ci. waaye yéen ngir kañ fan lañ leen jàngalee ni bu gisee dëgg mënul wax loolu man la sama sama ñaangi personnel la. ko gis ci yéen waaye journaliste Sénégal da ngay wax ak ñoom ñu ne non question doomu ko posé maa la koy posé mais binduñu ko fenn. la léegi loolu journalistique amul fenn fuñ bind ni. xam nga yaa na xam nga yaa ngi rubé tata bi jeex a parce que yéen xam rek moo tax may wooyee Sénégal yenn xeetu dafa am journaliste ak lu ma dafa am dégg nga lu ma wax ma yoo xam naa ni ci journaliste yi nga <laughs> mais man moom nee naa la doo ci génnee noonu ati bisimilah léegi dama lay expliquer benn affaire. gis nga li may wax bu ji soxlaa. mu nga seet ñoo ngay seetaan de ñoom ña ngay seetaan de ak ñooy seetaan Macky Sall génnul tontu ma Macky Sall moo waxoon ay nitam daw leen ngeen dem ci média bi ngeen xeex wax sama programme sama bilan mën a rang une semaine Macky Sall paniqué génn daw leen daw leen génn leen internet bi génn leen internet bi am na ay manipulateur am na ay influenceur loolu kañ la loolu bërki démbale di lu ko indi dem leen laaj ko ko lu indi panique boobu panique générale boobu bam mu naan daw ba mu naan ay élément am daw leen génn boo leen duggee internet bi bu leen seetaan bu leen kii xool leen rek information bu leen fa yëkkati Macky Sall moo la yow moo la jox crédit booy duggee ci internet balay wax loo fa war a def ak loo fa war a seet moom moo la ko war a jox depuis ban 1900 la benn président di wax nit yi boo duggee ci internet demal whatsapp bul dem Viber wala demal Twitter bul dem Instagram. il faut rapidement. waaw ok comme comme bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu soxna si parrainage dëkk bandi rek la am soxna si parrainage amul Amérique soxna si parrainage amul France soxna si amul amul Japon soxna si parenage amul Corée du Sud soxna si parrainage affaire bandi la affaire sàcc la yoonu sàcc la dem leen ngeen indi ay fiche yoo xam ne boo amee temps mooy parrainé mooy di nga mën a dem élection. mais chiffres yi yi chiffres dem nga ba osé ba osé. je parle pas de man waaw loolu laa lay wax man la ma ne la man dama lay liiral agenda gouvernemental gouvernement dafay am agenda boo ko xamul gouvernement nu mu amee caisse noire noonu la amee agenda bu ñuy teg. ma ne la ma liiral la agenda bi ma ne la Ousmane Sonko sera bi après le 4 avril entre le 6 7 et 8 et dinañ ko entendre ci boobu ni ma la ko waxee waxuma 10 9 20 waxuma moo d'accord d'accord mais Mollah Mollah xaaral ma léegi agenda boobu laa waxtu bi dañoo xoj te xam nga weeru koor lañ nekk nit ñi lañ ñu dogoog yooyu noonu. Euh, xam naa décalage d'horaire bi foofu yow moo tax peut-être da ngay xaw a tuuti. mais fi ma bëgg ñu daanelee mooy déjà yow rapport nga woon. war a rapport nga ba tey. non rapport laa ba léegi man damay bind ba léegi damay bindal ay rapport maa ngi bind ma dóor la teg si léegi léegi ah. <laughs> loolu loolu xam naa après di ma ko doon yónnee. seen scandale euh, yow yow yow mi nekkoon kër gi. yow ak ak euh, kilifa ak cat. yéen ñett ñëpp euh, dem ba benn moment rab bi xaw dox seen côté yéen ñett ñëpp ngeen choisir nekk ay activiste. yow yaa neex ñun dañoo mën a doon ay activiste yow yaa neex. xam nga xale yi rappeurs yi fii xale yi ñoom Samba Peuzzi booy yi dañoo ñëw daal di jël game bi ay ñoom dip daal di leen yóbbu retraite. écoute le rap ñun le groupe Kër gi on a toujours été l'un des groupes les plus engagés du Sénégal depuis jamono Abdou des groupes les plus ci affaire système groupe Kër gi bul fàttali ñoom ñoo créé Y'en a un mouvement de révolte d'indignation et de contestation keneen créé ko groupe Kër gee ko créé suñu idéologie la donc loolu war ngaa xam ni kon boo gisee groupe Kër gi ci temps ti bi nga xam ni kon ñii vraiment ñuy suivre nga xam ni ñii dañoo mais lu tax ngeen rab bi kon fu ne dem ci consacré uniquement ci affaire activisme bi. non non kenn bàyyiwul rab bi. ah yow bàyyiwoo rab. man day man gëj naa dégg sa son. waaw loolu laa wax man génne naa album moom même bu dee def na ay euh, bientôt quatre ans mais maa ngi waajalaat album. waaw ah, mais bu fekkee yaa ngi ci rab ba tey année di génne quand ak naka nga gisee rab bi tey ak concurrence bi am également ci milieu musical bi mbalax côté mbalax ak également côté côté côté rab bi gis nañu concurrence bi vraiment fës na ci. dégg nga leen ma expliqué mais nan ngeen mën a waxee Mollah Morgun di wax ay wax jub jub wala nga ko jëlee ba ñu bokk bokk monde bokkuñu monde bokkuñu génération bokkuñu dara bokkuñu dara mouvement kese lañ bokk mouvement. ngaa ko blende ñooñu c'est des fans à nous des fans à nous. yu doon déglu ay kër gi faaya faaya kuy def defoo di déggee. mënul jaawale mais ay xale lañ yoo xamante ni jamono ji kenn du wax game bi ba pare génne leen ci ñoom ñoo ko boole. ñoom ñu ne ñoo ko aar jamono ji normal c'est le point kenn du wax football du wax El Hadj Diouf El Hadj Diouf bu muy football ñun ñu ngi rab El Hadj Diouf retraité ñun ñu ngay rab mais léegi am na Sadio Mané chaque chose à son temps. mais kon raison pour laquelle nag moo la raison pour laquelle kon waroon ma wax ni ma bul tudd ay kër gi di ci wax ay ñoom ngaaka ñoom booy fa ngi tudd leen parce que booy yow ne kenn je parle de comparaison je t'ai dit que comparaison n'est pas raison tu jël di comparer groupe kër gi ay ngaaka blende wala dama ne génération père pardon waroo xool tudd ñu melokaanoo tax nga teg ñu kon non génération bu nekk ak sa ration sa dimension sa mission diggante bi eh. am pont kon rab naa ko. moo la ngay rab waa léegi naka nga gis na nga. apprécié rab naa ko si taawun kër gi album kër nga ah, apprécié ñoom seen musique rapidement ñu tëj jotaay bi. en tant que les jeunes ñu ngi ñu ñu ngi def seen yoon ñu ngi ñu ngi ñu ngi créé seen chemin je les euh, je les encourage. Hmm. Euh, c'est ça quoi. mbalax bi tamit yaa ngi koy déglu des fois. moom mbalax ma duma ko dégloo xaram xaram. naka nga gisee concurrence bi am diggante Wally Seck ak Sidi Diop. waaye bu nalawee yow nee la naan café te yee groupe yoon nekku ci ñoom. Mollah ça a été un plaisir recevoir la ci Sénégal 7 TV vraiment di la remercier euh, ci sa disponibilité euh, mu euh, ñu ñu namoon ko nag depuis après en tout certainement da nga jàppoon nga nangul ñu ko ngi lay remercier vraiment. waaw fii la paix fii la paix vraiment merci à vous tous set 7TV. waaw non Sénégal 7 bul may boos waa 7TV Sénégal 7. dama dama ci xam ne xaw ma fu metti kon 7TV Sénégal 7 kon. Sénégal 7 voilà euh, lu war a 7 bëgg ngeen 7 de. ah mais 7 dafa nekk chiffre bu baax. ah bon ah c'est mystique quoi. non c'est pas mystique. <laughs> donc vraiment ani an fan ngay tàggatoo wala li nga wax yow wax yëpp ko. non wax naa lépp kay lépp lépp lépp man kay. man kay kontaan naa trop vraiment di la remercier la wax ni le combat continue le combat moo la pareegul de léegi nag benn affaire rek laa bëgg a expliquer quoi boo xam ne dafa dafa dafa sedd xol quoi c'est-à-dire bu may wax boobu ba léegi kenn bindagul dara dara dara may wax dara dara dara ci may wax léegi nag nee naa leen damay damay def benn précision Ousmane Sonko vendredi bi nga xam ne génn na ci télé yi wax ni bu ko kenn topp ci tribunal ba seetaan nga waaw vendredi boobu def naa live ci laa commencé di fëgg live vendredi semaine bële def na léegi dix jours ca hmm. lañ daw ci diggante ba may man ba may ba may wax naan ay lu mu tudd François Hélène Gaye gisul Adji Sarr boobu gisu ko ñu daw ci diggante ba avant moo dem kaaw ñu yóbbu ko photo léegi moom génne ko de ma ne gisu ko ñu génne loolu c'est normal nit bi heure bu muy wax man bu ma heure bu may wax noonu noonu noonu boobu gisagu ko te yàlla seede na musu ko teg bët léegi nag yow bu ma la waxee nii nii nii yow gisoo kii ñu daw ci ginnaaw daw parce que moo laa ngi tàngal yomb na c'est des c'est des choses a déplacer. pot bi mi ngi fii pot bi mi ngi newul fii bu ma koy wax bo pot bi mi ngi foofu noonu nga daw ci digg ni pousse pot bi foto ne pot baa ngi nii ne joue pas avec l'esprit des gens moment bi ma koy wax. pot bi mi ngi woon fu mu ne. ba nga ko jëlee déplacé ko yóbbu ko bañ mi ah. euh, nga xam daw na ci ginnaaw lu lu bu muy yuuxu ba léegi musu koo gis ba mu dawee ci semaine bii passé ak li mu sol balaa moo dem Amérique ñu taw parce que moo laa ngi def live yóbbu ko fa foto ko loolu taxul mu effacé dara ci li may wax damane ne. gisu ba bu ma koy wax ba bu ma koy wax message bi jàll na. voilà ba bu ma koy wax musu ko teg bët ba bu ma koy wax musu ko teg bët. voilà léegi nag nañ bàyyi manipulation bi manipulation bi seen côté la ne leen ñu ñëw génne li ma li ma wax crime financier bi may wax ci biir samay live crime de sang bi may wax ci sama biir live li may wax ci sama live yëpp tuur yu may cité nañ dem wax ci loolu moo gën ay kii photographe la ko donc vraiment euh, d'accord honnêtement ça a été un plaisir di la di la recevoir euh, di la bàyyi également nga nëpp xam nañu koor gi métti na et tout donc euh, ñu bàyyi la nga nga baay baay di métti koor gi baa waay ah <laughs> donc en tout cas man tamit may remercier staff technique bi ma accompagné Junior pour la coordination également YH euh, Régie ñoom Bijou ñoom tuuti administration bu Sénégal seen yëpp euh, suñu direction Pape Ngagne ba ci suuf may remercier suñu ay internet également ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp leen di remercier tous autant que vous êtes di leen jox dig daje ci yeneen numéro Feeling Sénégal seen lépp rek objectif bi moo di gën leen a jege euh, ñi nga xamante ni bëgg ngeen ñu leen fexe di leen di leen invité